sëñ bi ñu ngi lay ziar. noo tudd man maa ngi tudd Pape Idrissa Diouf. def tur bi nan la. man Assane Diop. Abdoul Aziz Kane. man El Hadj. question ma njëkk laaj mooy xaalis bi ñuy def si ay ngénte ay ay ay mariage léegi dem nañ sax ba léegi ku jóge maax dañ lay defal fête xaalis boobu yëpp du yàq est-ce que. ah loolu de wax dëgg yàlla sëñ bi loolu moom moo dëgg yàlla jaaxal nañu trop parce que da ngay gis koo xamante ni sax ñi ko am di ko def garaawul mais da gis koo xamante rek dañ ko yóbbu màkk mais après. ñëwaat bi mooy moom bu ñëwee yaakaar na ni moom dafa war a def teraanga boo xamante ni comme si doomam day sëyi wala dara léegi moo tax des fois da ngay xool da ngay gis ay même gane la màkka yi wala ko sa doom di sëyi da ngay gis ñu yàq si xaalis boo xamante ni yow en personne da ngay xam ni famille bi nga xamante ñoom ñoo yor ñoom ñoo ñoom ñooy ngénte wala ñoom ñoo teeru kuy dem màkka ñoom dalee leer ni yow bu ñu foofu ils seront dans des besoins yoo xamante ni duñ xam fu ñu koy waxee. dëkk bi métti na lool lool lool nga war a am 2 millions foo ko war a dugal wut ci nga nga woote ngénte ah fab 2 millions yi yàqu ko nit ñi ñëw bu subaa doo am loolu léegi xam nga loolu metti na mag ci moom loolu moom ba point moom ñun jigéen ñi moom d'accord nañ ci moom. bon nit ñi léegi dañ ko bëgg a def tradition quoi mais daal lu mu mënta xam parce que tamit nit ku xewlee aussi tamit foog mu woote waaw foog mu gënalee. donc bu ñu ñëwee aussi voilà quoi faaw nga teral leen aussi xam nga minimum. mais tamit voilà warul nekk loo xam ne aussi day dem ba mu nekk benn tradition wala mu dem ba doon loo xam ne léegi xaalis wala booy ganale aussi foog nga def ci ay millions quoi non non non non non nit ki mën nga xew mais xew tamit ci say moyen aussi. pas puukare bañ ci xam nga bañ ci am wala gis leen ngis tal quoi. benn na dem màkk ji yàq bu rëy ci nekk dem màkka xam nga lu ko yàlla santaane demal màkka tàggu say mbokk say dëkkandoo dem def sa farata ba ngay indi sa sam-sam def sa paan ku ñëw ziyaare la naan waaye en tant que rey naka ki saafi ginaar ak ki ngondal moom yàlla santaane ko ci dem màkk yàq gu rëy la yàq moom man anduma ci. man je vois que ne le fait que nit ñi di jël xaaliss bon ko disant comme niñ koy waxé di yàq parce que suñu waxé yàq rek cela veut dire yàq amna quoi ça di def lo xamné def l'essentiel loolu du yàq quoi bon mais tamit bon niñ koy waxé exagérer aussi c'est pas bon quoi. l'islam lim wax ñent ak trans moy tak jabar leneen luñ ci def yàq la. tu mets des millions so paré di nga gis ko la ne lekkuma ça sert à quoi ci côté takk je veux dire d'accord dang nga koy siiwal da nga koy yëgle pour nit ñi xam ne kii am na soxna kii am na jëkkër kii jabar genre mais cela ne veut pas dire que dañuy gaspiller siiwal ak gaspillage c'est deux choses qui sont diamétralement opposées ci côté tudd waaw mais xëyal tudd sa doom dem liggéeyi dafa am ku ñuy roy muy prophète bi du loolu lañ musulman yi dafa am ku ñuy roy daan baas mu def ay musique mu woo waa koñ bi muy déranger muy def tapas ou bien daf daan toog ci benn koñ bi muy perturber ou bien il n'avait pas d'enfant amuloon ay doom man dama gëm ne booy roy nit ki da nga koy roy ci li mu doon dundee ci ni mu doon doxee même booy roy ku bon da nga koy roy ci nu doon doxee ci nu mu doon dundee rawatina nga ne yow dafa am koo gëm nga ne yow mooy gën di mbindeef nga ne yow moom nga yaakaar pour nga dem àjjana

def ci kii yooyu noonu quoi naay sul quoi. waaw man li ma ci njëkk mooy gaspillage la ak dellu ginnaaw parce que pour man réew boo bëggee mu avancé lépp loo xamante ne pour yàq la danga ko war a éviter parce que actuellement nii Afrique dafa nekk foo xamante ne sous-développé la li tax tubaab yi raw ñu doo fi gis benn tubaab boo xamante ne day jël xaalisam di ko yàq wala mu koy gaspiller tubaab bu jëlee xaalisam da koy dugal foo xamante ne da koy liggéeyal ëllëg. mais pas muy gaspiller euh, al jël ngénte yi ñuy jël xaalis bi di gaspiller ay ndaye léeg kii nii moo tax loo ci gis dellu ginnaaw rek surtout jigéen ñi lay waxal quoi ndax ñoom ku bëgg avancement ëllëg di nga bàyyi jël xaalis di ko jël ci ay ngénte di koy yàq wala ci ay ngane la loo xamante ne ëllëg mën nga ko dugal fenn wala nga dugal ko ci banque def prêt mu lebal la nga dem liggéey moo gën koy jël di ko jël di ndayale wala nga koy def ay nganale yu ñàkk fayda dëgg la nag jox nit mu lekk dëgg la neex na mais nag ak ni nga koy joxe ci condition ndax jox nit mu lekk du question da ngay woon nit ñi jox leen mu lekk du affaire u ngistal nit mën nga koo woo dugal ko sa biir kër jox ko sutura mu dem sal euh, jox ay njabootam ñu lekk mais pas nga woo ay ndaje di wane lii la am wala nii laa mel loolu ci gaspillage la. temps yi ñu doon dégg Macky Sall si si télé bi mu ne Sénégalais dañoo mun fet ak foo quoi. te moom yàggul dara ñu ngi dégg ne mun na def anniversaire APR nga yaakaar xaalis boobu yëpp noonu amul feneen fu mu xaj quoi. ñun nouvelle génération ñun jeunesse bi bu may toog ñun di xaar Macky Macky Macky Macky la ñuy dem quoi ñun ñoo war a jóg faayatal suñu bopp pour ñu mën a am leen quoi bu ñu bëggee ba si chaque jour si Macky Macky rek ñun duñ dem quoi nañ jéem a jóg ñun jeunesse bi faayatal suñu bopp xam ñun li ñu war mooy lan mais suñu bëggee toog ñun mooy loolu quoi du dem. xëy na feneen kañ tey tey tey rek ci journaux yi tribune xam ban journal tey tey tey rek ci quotidien maa gis ne aussi ñoom ñi ngi préparé euh, sommet francophonie bi bon déjà ñi ngi mobiliser xama combien de millions ay junni t-shirt ay junni xama moy lu gaay di wax rek quoi moom mi ngi naan gaay yi yàq mais moom mi ngi blow ah ma yow da ngay blow ya ngi blow xama donc c'est pas une façon peut-être mooy li may wax ni rek sommet la c'est vrai mais tamik dal bu ñuy yàq quoi nañu wañi yàq gi nañu wañi yàq ji quoi millions ñi dépenser c'est vrai xëñ na ci jeune yi. y a beaucoup de chômeurs dans ce pays. ñun ñi dafa yoon suñu koñ bi défense suñu ndox mi di taaki tali bi xam nga moo gën yóbbu ko foofu. ah jox ko ci dund gi. jox ci dund gi baykat yi xam nga ren seen nawet moom la yàlla xam doy na. courant ndox mee courant bi am na fu mu xaj yàq a jeex ci àdduna. jamono jii yàq fi jeex yàq fi jeex de lu waaye am na ko def ci nit ñi ñu lekk ko wala ñu amee luñ ko defalee ñaan la ci waaye en tant que anniversaire moom yàq la. bu fekkoon moom njëkkee na ci moom. xëy na bu ko waxee population population bi dinañ ci mën a d'accord bu fekkee nag moom mi nga xam ne mooy njiitu réew damoo war a defar te moo yàq tam xam nga population bi tam ñoom it di leen neex rek la ñuy def. seulement li ñuy metti mooy est-ce que reste est-ce que xaalis bi ñu doon feetoo foofu ba xam lu xaalisu état bi su fekkee xaalisu état la quant à Macky bés fi jógee dañ ko koy laaj. dañ ko koy laaj parce que suñu xaalisu ataya bi c'est pas pour des pour pour pour pour pour ñu siy payer ay gaspillage ak yooyu noonu c'est pas pour ñu ko payer ay gaspillage ñoom du pour bu ñuy ñu buggee seen anniversaire du ñu organiser ñoom ñoom seen bopp waa APR seen bopp nañ jël seen xaalis bopp mais suñ demee bu ñu demee ba à un certain moment ñu xam ni xaalis boobu xaalisu nguur gi la ñuy jël di ko fooyee foofu ah kon vraiment day day catastrophique quoi. ban ban conseil ngay jox Sénégalais yi pour ñu gën a job maanaam dëkk bi jëm kanam quoi. waaw ñu dem ñafe ji. te buñ ko amee ñu bañ ko yar ñun jeunes yi li ñu war quoi mooy lan ñu xëy xëy xaar kenn quoi bu ñu xëyee ku nekk nekk ci li naan nekk mooy lan xëy dem wuti noo dóoree waar xam nga dimali sa ndey ak sa baay quoi pour man sama gis-gis. évolution Sénégal dépendre lu dul ci mentalité nit ñi il ñu changer mentalité. li ma leen di xamal daal mooy nañ bàyyi affaire nganale yu ñàkk ñuy def nii dem màkk dëgg la farata la ku mën mais boo ñëwee jëlal sa lu simple nga def ko nit ñi toog ziar la lu nga leen di jox nga jox leen ko mais pas nga jël ay millions ko wala ay cent mille di ko def ci ay nganale yu ñàkk fayda yooyu deuxième la